dinañ tudd ay champion yu bëri waaye dañuy tudd le champion du monde nga xamante ne démb la ko suñu borom teg ci loxoom mu doon fierté ak mbégte goo xamante ne yaatu na loolu ci sénégalais ginnaaw combat bi nga xamante ne suñu borom may na ko ci ndam suñu frère Omar Kane Reug Reug ñu koy nuyu di ko félicité bu baax a baax waaye ni ko noonu tey Sénégal Buzz 221 ñëw fi nga xamante ni moo di dëkkam euh, fas yéene waxtaan ak moom ci noonu ñu toog ak ki nga xamante ni moo di papaam yar ko tàggat ko. ba mu dog si fii nga xamante ni tey fii lay yegg si ñu nuyu ko fas yéene ko bàyyi rek mu nuyoog ñi nga xamante ne ñoo di mbokk internet yi papa maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax kan. waaw maa ngi lay fay di la delloo nuyoo di nuyu monde entier. di sant yàlla bu wér a wér a wér a wér. di nuyu monde entier. ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen wax ne ñaan yëpp egsi na. vraiment kontaan nan kontaan nan trop fépp fu waay nekkoon yor sa kurus di ñaan ñu ngi lay delloo njukkal. di la wax ne ndam lii yàlla def tey Omar Kane jël ko di rëg-rëg yàlla nunu ko yàlla boole ñun ñëpp si daraja yonant bi waaw euh, naka ngeen dundee préparation combat bi nga xamante ni tey bëri woon na coow ñu bëri loon favori bi jox ko kee nga xamante ne mooy adversaire rek rek parce que il la le champion euh, bëri woon ay raaya te amul gul woon défaite nga xam sa doom yàgg ko gis muy compétir ñu jël lépp jox ko adversaire am naka ngeen doon dundee pression boobu. àddina moo mel noonu. ñaari ginaar sax bu ñuy xeex foo jaar kenn ku ne am koo faral. mais dama ne la ñi ñi ñi tëggoon naar bi yëpp dëkk caaray. danoo gañe parce que xam nan Omar Kane bu baax. mais dafa ragal naar bi. boo ko contacté woon wala nga xam ko. ñi ñi joué dëkk caaray yëpp danoo gañe parce que ñëpp ci Omar Kane lan teg ñi xamul nag ñoo tegul ci Omar Kane mais ñi teg ci Omar Kane danoo xam Omar Kane xam ne bañkat la gagneur la. te dafa ragal defet te nit ki nga xam si ngay nangoo investir sa xaalis di ci teg ba tax ñi ci gagné ci naar bi tey ci caare fii ñi ma oo di ma félicité xaw ma nu mu toll wallaay enzim laa la wax. Omar di xeex ba jël ndam li lan nga yëg papa sa doom def loolu. waa damaa dellu sant yàlla rek parce que départ moo metti damaa dellu sant yàlla bu baax bi ma seetaane ba mu am ndam ñu yëkkati loxo bi jox ko victoire dama ne alhamdulilahi rabbil alamin parce que fa ma départ ak moom moo metti ànd ak waa Caaray ak waa Sénégal yëpp. ànd ak waa Sénégal ak waa Caaray yëpp Omar Kane mën na ma ne mooy mbër mu amul ab noon ci Caaray mbër mu amul ab noon ci Caaray mooy Omar li ko daga ci Xaadim Njaay ba ci ki gën a tuuti ci Caaray ñëpp ay waayam lan. est-ce que xam nga ne Omar moom la yàlla def li am Caaray tey mu am ci moom jaar ci moom. Caaray képp ku xam làmb laa la wax divergence doon na fi juddu waaye bi mu ñëwee dafa boolewaat ñëpp ñu nekkaat benn. kon loolu sant yàlla la. sant yàlla bu wér a wér a wér di wax ne ñu ngi leen di sant képp ku yor sa kuruus doon ñaan ci kombaa bi ak foo mën a dëkk ak foo mën a ne di ab Sénégalais di ab citoyen di africain drapo Sénégal tax laa jóg ñu ngi lay delloo njukkal ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm. di la wax ne am nañ kontante bu baax a baax a baax ndam li nag ndamal Sénégal la ndamal Sénégal la ndamal Sénégal la Sénégal yëpp ñoo ko moom. Sénégal yëpp ñoo ko moom ba tax bi mu amee ndam ki jiitu ci sénégalais di le président de la république gis nañ poste bi nga xamante ne def na ko di ko félicité di ko ñaanal ci li nga xamante ne moom la am ci ndam loolu noonu di ko wan ni ndamu Sénégal lépp la am loolu bi ngeen ko gisee président def ko fan la leen def ak naka ngeen ko yëg. waa xam nga lu masul am su amee rek. dañuy sant ki ko def. Omar Kane ce n'est pas la première fois mu dem xeexali Sénégal yàgg naa xeexali Sénégal. Mhm. kon tey bu fekkee jox nañu ay prémisse. même su amul sax loolu yëg-yëg da cee am surtout ànd ak monsieur le maire bu Thiaroye-sur-Mer mu am lu mu ñu wax ci lu baree baree bari loo xam ne ni mën a mënagunoo wax li mu ñu dikk lu dañuy bàyyi ba jëf jot mu jëf ko ñu ànd ak ak moom. waaw muy maire El Mamadou monsieur le maire de Thiaroye-sur-Mer. Mm-hmm. waaw. Euh, ngeen bëgg ci rek état def ko ci moom. waaw pour. wane ka ne. ginnaaw bi mu doonee champion du monde doon sénégalais dëkk fii nga xamante ni moo di Caaroy Géej. waaw li nu bëgg mooy ku def lu rëy am lu rëy te ginnaaw dafa def lu rëy te demalul woon boppam Sénégal la demaloon kon nan ko defal lu rëy man loolu rek laay ñaan état mu xam ne kii doomi Sénégal la citoyen la demoon xeexe ngir Sénégal ñu recevoir ka teeru ka teral ka. vraiment mérite yi war yëpp ku ne ak sa niveau fi mu yem ñoom ñoo ma gën a xam mérite yi ci war yëpp ñu def mérite yi war yëpp ci Omar Kane encouragé ko pour ëllëg xale buy jóg bu mel ni moom mën a am jom pour bëgg am li mu am nga def li muy def waaw dem nga combat ba mu jeex teg ba tey jii gëmuma bët nelaw mais mësuma cee tiit nag seetaan naa ko mu jeex tag mais ba tey gëmuma ci bët nelaw parce que nit ki dama ko waxoon si combat ak bukki bukkisu mu amoon dakaar ñu ngi ko monté tip top bi ma solee yëre bu ñuul bi loolu premier kombaam la ak Boukisu déglu leen wax jooju bu baax parce que dama ne woon Omar Kane defagul dara mais ñu ngi génnaat affaire boobu teg Omar Kane ni teg ka ñaari médailles yi mu mel ni wax ci tey laa ko wax te sa premier combat ak Boukisu sa dakaar laa ko waxoon si biir Versailles ma ne leen defagul dara li ci sunu kanam moo raw xale la bëggal na ko boppam te am na ñaanu waajuram te mën na li muy def kon li ci kanam moo dàq fuuf fi mu fi mu nekk nii. démb caare nelaw nañ. nelawul bu bët set te boo ñëwee fi mel ni Sénégal moo doon fubal moo gagné vraiment ñëpp a kontaan ñëpp kontaan di féliciter nag xale yi gagné ci naar bi. parce que vraiment ñoom it wane nañ seen bopp quoi. Ah, xale yi ñoo leen sédd péré. xale yi gagné ci naar bi moom. <laughs> non vraiment kontaan ñoom ñëpp. parce que gis naa caare dafa fees del ñu ci bari sa damay daje ne leen non yow supporté woo quoi da ngaa gagné. victoire ab gagné nga am quoi da nga am big big tëb gagné ci naar bi nga doon joué waaw loolu yëpp sant yàlla la loolu yëpp sant parce que nit ki boo amul ci moom yaakaar doo teg sa xaalis si moom te ñoom danoo am yaakaar ci moom moo tax ñu teg seen xaalis si moom ñu gis tamit Sénégal influenceurs yeeg ñi nekk ci àdduna ñoom ama ñëpp estati ko ku ci ne tamit euh, génn def vidéo ñaanal ko soutenir ko ci xeex bi nga xamante ne moom la doon def loolu naka ngeen ko gisee waa xam nga gi Gris 2 toujours damay faral di wax Béré ak Omar taxulaa nekk cuune bëre ak Omar Kane warul la tax nit ñi bàyyi la fi te duñ la jël c'est un champion Gris mhm. ñu ngi rafetlu ay waxam déglu naa ko bu baax di kontaan trop ci moom ni mu génnee ni mu waxee parce que nit su waxee nga xam intention ba muy waxee ak li muy wax fan la ko toll. Mhm. kon ñu ngi lay encouragé bu baax Gris 2 di la wax ne. yaa ngi Omar dootul lamb moo leen di boole. Hmm? dootul làmba moo leen di boole. parce que nit gor gu ne gor nga te ni nga waxee man mii waajuram déglu naa ko dégg naa ko gor gu ne nag gor nga ñu ngi lay sant bu baax Gris ñu ngi lay gërëm yaag Omar kan nag ay frère ngeen ci làmb mhm. bëre ngeen nag yàlla def li muy def waaye bis ni ki tey man déglu naa si intervention ay frère ngeen yaag Omar Kane ci làmb mhm. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mënoon na ngaa bañ a def li nga def mënoon ngaa bañ a wax li nga wax waaye li nga wax ku la xool xam ne li nga wax yéene nga ko waxee mhm. kon ñu ngi lay encouragé Gris 2 di la sant bu baax di la gërëm waaw Omar a ngi koy xaar waaw ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar bu baax a baax parce soo jógee ci MMA fële dafa am contrat boo xam ne da nga ko ak ñoom mm-hmm. dafa am dernière face à bu mu def ak ñoom comme li am fii rek Sénégal mm-hmm. su ko defee ba pare nag laa nag ñu préparé pour xool ban bés la war a ñëw ñu mobilisé wu caari géej yëpp ñu dem aéroport teeru ka teral ka tatagal ka vraiment xam ne andi nañu raaya boo xam ne nii Sénégal yëpp ñoo ko moom waaye caari géej it desunu gannaaw waaw. Caare Géej tamit desul gannaaw. loolu tamit foog ñu indi ci tuuti ci leeral tamit sa diggante ak doom nga gën ñoo xamal euh, ban genre nit la moom mi nga xamante ne mooy Omar. waaw lii phénomène la rek bu yàlla def xam nga bëri ko ci mbartal puus mu dem puusul mu dem parce que nit di nga waxee benn wax ku gàtt xel day yaakaar ne li nga ko jur moo tax waxoon naa ko mu bukki su nee leen Omar Kane defagul dara ku gàtt xel da nga yaakaar ne li ma ko jur moo tax ma waxee foofu waxee ma foofu dama ko xam dafa ragal defet te dafa bëgg a te Omar dama ko xam bu baax a baax dafa bëgg entraînement bëgg boppam am lu muy bañ. Omar dafa am lu muy bañ li nga koy gis noonu yëpp kilifa la li tegu ci mbagaam man mii damay wax ak yow sax bu may wax danga naan déedéet li tegu ci kawam danga naan déedéet li nga koy gis noonu kilifa la. responsable la li muy def ci ay social ci àddina man yi jaar ci sama loxo ak yi jaarul sama loxo su ma la ko waxee nga ne amul waaye nag dañoo nekk ci réew moo xam ne réewum sutura la du nu def di wax kon bu yàggee la ngay def du jëriñ kan kay def te la ngay def day mel ni ngi sal waaye bari na social yu muy def mu jaar man ci sama loxo man mi baayam ma dem di ko jox ay nit. Mm-hmm. billaahi wallaahi tallaahi. Mm-hmm. te yàlla rek tax te du dara jarul may tudd ay turu may wax. Mm-hmm. waaw. mu ngi koy def moom mu koy def moom Umar. waaw. Euh, digganteem ak waa Caaroy. waaw waa yi moom bu may wax fii ba suba ma fi jóg. xale yu tuuti yi sax ñoom moom gën a bëgg Omar Kane Omar Kane comme maanaam misaal mu ma la bëgg a wax xale yu judd ci ginnaaw mbay la. gisuñu mbay xamuñu mbay waaye koo ci waxal danaan mooy mbërëm bari na xale yu caara yuy dox ci biir caaray sax boo laajee kuy sëmba danaan rëg-rëg te wallaahi azim masuñoo jàkkaarloog moom bëgg yàlla moo koy def ci nit. kon dëkk bi yëpp ñoo ànd bëgg ko. dëkk bi yëpp man man naa ne Omar Kane mooy mbër mu amul ab noon ci caaray man boo gisuma ab noonam. te ñaanuma yàlla sax mu am fii ak nit problème bay ab noonu parce que man du ko seetaan ci loolu du ma ko masa a seetaan ci loolu toujours la ma koy wax mooy wàcceel sa bopp mel ni dara du dara ci yow koo gis mu féete a mag féete la kilifa jox ko cër bi wu moom joxe cër terewul am cër joxe cër te la waroon cër te sukka du la tere yóbbu say om ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te xam ne siggal nañu ñun waa Sénégal Omar Kane siggal nañu ñun waa Sénégal siggal nañu it ñun waa Caaroy ak fukki penc ak ñaar yëpp su ma waxee te liwu ma dëkk lébu yi man nanoo mer yaakaar dama leen a beddi ñu ngi leen di sant di leen gërëm fukki penc ak ñaar yëpp parce que toujours dafa bokk sama communication lébu yi amuñu seen fay fukki penc ak ñaar yëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen sant ndar ba kaf ci kirin damay juum dëkk yooyu yëpp bu ma limee damay juum ba tax bëgguma lim ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm gunay caara yëpp nag du man damaa mën a wax ba tax ma toog ci média di wax du damaa sañ wax ba tax ma tax ma toog sañ sañ toog di wax du man maay bàyyam ba tax ma toog ci ñii lépp lu ma wax lu ne ma dan kaa wax da di cër bu yàlla sédd du lu ma gënal du lu ma sàkku du lu ma bëgg mais lu suñu borom def kenn mënu ci dara parce que jomaay fay kaso la jóge nekk président réew mi ku ko waxoon ne boo jógee foofu di nga nekk président du ko gëm kon lu yàlla def kenn mënu ci dara lii mbiru sunu borom la bëri nga ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem di ñaan sénégalais yëpp ñu gëm ne Omar kan seen doom la seen rakka seen jarbaat la seen sët la seen lépp la képp ku jàppoon benn nga jàpp fukk xam ne Omar kan Omar Kanam Sénégal la mais Omar Kanam caaray la it Omar Kanam lébu yi la it déggante ngeen waaw déggante nañ bu baax. lu mu la wax. ñaan yëpp egsi na père père kontaan naa ñaan yëpp egsi na mënatuma ci teg leneen loolu félicitation ñu ngi loo mën nag ci sant ak yi sénégalais yi boo ne senegal bàyyi woo kenn ñëpp a ngi ci loo mën ci sant ak sénégalais yi santal sénégalais yi nga gërëm leen te xam ne du sa coobare du sa effort ay ñaan ñoo la ci tura ñoo la ci génn. macha allah ci kàddu yooyu ñu koy nuyuwaat moom Omar Kane Reug suñu frère di ko félicité waat ci ndam lu rëy li nga xamante ne indil na ko Sénégal di ko ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm kontaan nañ bu baax a baax a baax ci victoire bi waaye nag papa pare ngeen ci MMA bi de seen digganteeg Boy Niang nag ah waa Sénégal tamit nee nañ boobu du yomb de papa. waaw loolu. loolu nan bàyyi ba ñu egsi le jour ji. Mhm. parce que fi mu toll nii dafa am lu nu amel waa Sénégal muy lii ñu jëli woon ñun ñëpp ñu bokk ko comme fi nga may laaj nii ñoom sax si loolu lan bokk ñoom ci li mu jëli woon si lan bokk sunu adversaire yooyu ñu war a dajal li ñu jëli woon si lan bokk su nu demee nag ba Omar Kane nag ñëw nag ñu fete victoire bi ñun ñëpp ñu ànd bokk ci nag su boobaa nag ñu jublu nag suñu diggante ak ñoom ngeen jublu seen diggante ak ñoom waaw. waaye dafa am foo xamante ne maam foofu laa bëgg taxaw tuuti ñu tëjee ko tàggatoo ko ndax ku ne caaro yi di ne jàmm gën wax. di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne rek di jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi euh, nu ñu koy defee ak yéen saa su rek di topp lépp loo xamante ne rek actualité la waaye ñu topp actualité boo xamante ne dañu naan mbégte la ci sénégalais yi ginnaaw ndam lu rëy li nga xamante ne démb suñu doom indi nañu ko sénégalais yëpp bég ci muy le champion a a baax ci ndam champion du monde lu rëy la ci Sénégal kan moo ko jël ñu ne doomu Caaroy ba tax tey Sénégal Buzz 221 dugg fi nga xamante ni moo di yi waaye nag ñu toog ak suñu papa koo xamante ni dootuñu ko présenté ci lamb waaye dootuñu ko présenté ci ay analyse am muy suñu papa Ndiku ma koy nuyu bu baax a baax a baax di ko jaar di ko félicité di ko nuyu rek di ko bàyyi mu nuyoog bokk internet yi. waa asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Sénégal Buzz la ma Ndiku Diouf. dëkk Thiaroye sur Mer di papa ci champion bi Reug Reug Omar Kane di supporteram di fansam question yi nga jot a waxtaan nag posé ko ci champion bi nekk champion du monde dëkk Thiaroye Géej dëkk Sénégal donc question yu may neex la c'est la deuxième fois fi ngeen toog nii un champion du monde juddu fi jëkk nañoo am un premier champion du monde pes sportif ñu koy wax Ablaye Kébé moo daan entraîné papam bi ñuy wax Pape Kane yoroon ko boxe champion boxe la fii ci suuf si ngeen ne moo fi jëkk nekk champion du monde pes sportif rëg-rëg ñëw dabalik nekk champion du du monde MMA doon bëreeg russe boo xam ne nii moo yor raaya yëpp gis nañ ci fajar ñu ngi jéggalu suñu borom sax tey ay Sénégal ñëpp bi ñuy wasi fa di nodd ñëpp a génn di yuuxu ndax ndama ndam lee toll noonu Reug Reug nag ñu ngi koy félicité fils félicitation waa Caaroy gépp ñu ngi lay félicité à travers ma mais li ma ciy yokk rek mooy boo nekkee champion du monde tey Reug Reug président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay moo ko war a teeru aéroport bu mu wàcc jox ko passeport diplomatique jox taxawaay boo xam ne ni champion du monde comme Mouhamed Ali bi mu nekkee champion du monde le 30 octobre 1974 au Zaïre ñibbi États-Unis teeru biñ ko teeru moom la ñu war a teeroo rëkk commencé ci Thiaroye Sénégal ñëpp le premier ministre Ousmane Sonko le ministre de la jeunesse et des sports ñoom ñëpp war nañ teelu rëkk jàppale ko ñun nag ndam li bettuñu wallaahi azim ku dëkk caare géej gi ndam li du la bett c'est-à-dire ko xam mais naka ngeen ko doon déggee bi nga xamante ni combat bi taxaw na ñëpp gis adversaire am gis victoire yi nga xamante ne am na ko ak ay raaya yi mu am te amagul woon defet ñu bëri jël favori bi jox ko di tiit ci làmb ji la moo tax tiitu leen woon ngeen amoon confiance ne rek da koy daan. booba daa dajewul ak ku ko man rek mu ngi door a daje ku ko man parce que xam nga tubaab yi sport MMA bi ñuy def ñoom ñoom dañ bàyyiwul xel ne sénégalais yi ñoo leen ci man te commencé na ci rëkk parce que combat collectif la cest xeex la. alors que boo seetloo sénégalais yi ñu ci bëri dañuy man xeex surtout moom da ngay man xeex man bëri man yanu man fàqat démb gis naa mu sol ko balka ma ne tubaab bi xamul lii jëm nag tubaab bi li tax mu ko doon sës ci kord yi da bañ rek jël ko ci digg ci digg ci digg ring bi bu dikk ba mu set dóor ko ci suuf te boobaa day gën a miti ci moom maa la wax lii te lii ma la wax fii laa la ko waxe bu ñu yàlla la fa lay cat dina dumawaat keneen daanaat ko incha y une semaine de cela def naa benn vidéo Thiaroye sur Mer TV wax lii ma waxoon parce que ku xamul rek da ngay xool traversé am il est jeune macha allah boo xoolee fu mu jaar ci lutte traditionnelle jaar équipe nationale ñëw lutte avec frappe donc concordance yooyu mu boole c'est-à-dire xeetu bëri yooyu mu boole bu ko yóbboo NMA xaw ma ku ko dugal NMA mais il avait vu juste gisoon na ne kii bu duggee ci sport bi day nekk champion. tey nag Sénégal drapeau yëpp dañ ko war a yégal yéegal idmi bi une semaine di ko feetal amul benn télé wala benn site boo xamee ne tey ci Sénégal lenn rek nga mën a wax mooy la la grande victoire doo Omar Kane Reug à travers le monde. à travers le monde bi mu mbir mi amee gis nañ ki nga xamante ne mooy le président de la république génn ci Twitter am def affiche di ko féliciter ci ndam lu rëy li nga xamante ne am na ko loolu it ngeen gis ko yëg-yëg bi ngeen ci am lan la. loolu dañ ciy kontaan parce que le président de la république bu jëlee doomu Thiaroye doomu Sénégal nangu manifester victoire bi bëgg victoire bi dañ ko ci dañ ko ciy jaaraamal di ko ci jaajëfal mais des na des na mooy. président li ko population Thiaroye di ñaan ak la population Thiaroye Waas ak la population sénégalaise mooy naka jox passeport diplomatique teeru ko ci palais bi jox ko raaye yi gën a mag ci raaye ci réew mi ordre national du mérite ordre national du lion parce que daf ko mérité Omar Kane mérite plus parce que boo xoolee fi mu jaar ñu ne la champion du monde bi neuf combats à travers le monde mosul am défaite sa première defet doomu Sénégal jox ko ko doomu Thiaroye jox ko ko kon donc président de la République le premier ministre et l'ensemble du gouvernement li ñu war a def tey mooy jàppale Omar kan ni ñu koy waxee tagal tag tagal ka bàkk ka lii bettuñu nag bett cest dire man man en tant que sportif xam nga entraînement laa jógee yaa ngi may gis. ci géej gi nga. géej gi nga ma fekk ñuy waxtaan. ba ci làmba buñ duggaatee ci làmba bu lutte avec frappe gisuma ku ko man tolof tolof day am. ndog-ndog day am dañuy dal ñun ñi mais da lay wóor na yow xam nga ne diw mi yaa ko man mais rëg-rëg en âme et conscience ci MMA la ñuy wax ku ko suivre mbapat suivre ko bëre dóor di nga xam ne kii c'est le vrai champion. démb caare nelawuñ. kenn nelawul ba fajar parce que combat bi combat bi mu ngi am biñ jullee ba pare bi jàkk yëpp lalee seen malaanu wasi fa donc 6 heures 6 heures six heures vingt cinq commencé na nekk ci ring bi bi seede yàlla bi ko yàlla joxee ndam ba arbitre bi yëkkati drapeau bi yëkkati loxam takkal ko bi ci ndigam dëkk bi ci fajar gi ku doon nelaw yeewu nga ku feebaroon jóg nga parce que ndam lu mel nii dañ ko gëj am wax naa léegi ne am na ñaari champion du monde laay Kebe pes sportif rëg-rëg NMA Ablaye Kebe moo doon entraîné Pape pour rëg-rëg bi ñu doon wax Pape Kane Ablaye Kébé boobu nekk na entraîneur u Manga champion yu bëri ci làmb encadré na leen donc kon pour la deuxième fois Thiaroye am un champion du monde en élément muy Omar Kane Reug Reug di suñu doom yéen nag waa Sénégal Buzz amuñu seen fay parce que vraiment lii ngeen def ni pour viabiliser la pour fertiliser pour jox daraja la victoire de Omar Kane Reug Reug moom ngeen def fi ngeen toog fi la baayam daan toog fi la maamam daan toog fi ay baayam yëpp daan toog maamam mi jur papam di bàyyi Modou kan ci mbaar mii la daan toog fi la daan toog ci mbaar mi kon donc ñëw ngeen ci pencu pencu mbëru caaro yi caaro géej nag lii man bokk boo jëloon quatre-vingt-dix pour cent di doomi caaro yi ginnaaw ñaan yàllaay joxe ndam ginnaaw ñaan yi ñu ñaan suñu borom ñëpp amoon nañ ne yàqin ne Omar Kane day day day jël ndam li loolu moom c'était clair ñëpp amoon nañ yàqin ne Omar Kane rëg-rëg day nekk champion du monde. ñu bëri dañuy wax ne fii la ñuy xamee jàmbaar ndax sport yi wala combat yi doo ci gis mystique doo ci gis takkal ma kii mais fii la ñuy gisee jàmbar xam nga c'est ak làmb ni muy demee. xam nga xam nga làmb yooyu. yooyu yooyu animation la rek mais boo entraîné téye sa bopp mel ni nga war a mel. compétir xam nga un compétiteur nit ñi xamewuñu un compétiteur mooy seddul arène sénégalaise ñiy bëre mbappat yëpp ñoo ko téye. boo ko seetloo ñi seen yaram mandi ci mbapat ñoo téye làmb ñi seen yaram mandiwul ci mbapat toujours gis nga li leen di dal dégg Omar Kane boo xoolee traversé macha allah parce que sama doom la du may bëgg wax ci moom trop parce que ci ci télé laa koy wax mu xaw ma fu mu ne di ma dégg bàyyee ma ngi nii toog papaam bi ko jur moo ma ko dénk booba kenn xamagu ko ñu naan am na papaam ma dégg ma ne ko yow am na sa doom bu ñuy wax ne day bëre mais booba am na ñu dëkk fii ci dëkk bi gis ka xam nañ ne kii champion lay doon daf ko doon na ci deretam ci ADM la ne day nekk champion ku mu neex ak ku mu naqari nga forog moom nga bañ a forog moom xam nga da ngay dégg gars yi naa xaalisu làmb lañ ma ngénteeg mais ki nga xamee deretu làmb moo na ci ADN am deretu combattant moo nekk ci c'est un combattant tey ki yor CNG li mu ko war a def daf ko waroon na me empereur waxuma la géné waxuma la waxuma la général Reug Reug c'est l'empereur de, de de la lutte sénégalaise et de toutes les formes de lutte parce que ku ne champion du monde MMA mais ñaati moo ñaati ñaati pays nekk ci monde bi Nations Unies ñaati pays que composé démb ban télé nga taal wala ban rajo ci occidentaux yi États-Unis France Asie Australie Chine te wanewuñu le champion Reug Reug kon j'interpelle directement monsieur le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye de se tenir prêt à accueillir le champion du monde Omar Kane Reug Reug et de lui donner tout ce qui peut aller avec lui à partir de sa victoire c'est à commencer par les décorations d'abord Reug Reug doit détenir un passeport diplomatique Reug Reug doit avoir l'ordre national du mérite. Reug doit avoir l'ordre national du lion. Reug Reug mérite le lion d'or du Sénégal. Aujourd'hui, si c'était un ballon d'or à distribuer au niveau de l'Afrique, Reug Reug mérite ça. C'est le meilleur sportif actuellement à travers le monde. Parce qu'un champion du monde, ça ne se ramasse pas comme ça dans les rues. Ça se travaille, ça se mérite. Donc Omar mérite ça. Je vous remercie. le site Sénégal Buzz. à bon entendeur salut. jërëjëf mbokk yi jaajëf waxee foog nga sànni ci ay kàddu Papa Mbaye ma nuyu la bu baax baax di la féliciter ci ndam li nga xamante ne aussi bokk nañ ko. ah ñoo ngi lay fay. Uh-huh. ñoo ngi lay bëgg lu bëree bëri bëri. waaw uh-huh. ah, di rafet lu ñëw bi fi ñëw ci thiaroye sur uh-huh. uh, ndam lii nga xamante ne seen doom. indil na ko Sénégal démb sénégalais yëpp bëgg ci xeex bi nga xamante ne doon na xeex yéen ay waajuram di ànd ak baayam naka ngeen dundee ndam loolu démb. waaw ndam li kontaan rek bi tunu xam nga Sénégal hmm, xamuñu mbër mbër xamuñu ko rek alamba ji xamaguñ ko de xamuñu ko de vraiment bu dëgg dee dëgg rek xamuñu ko parce que ñu baree ngi wax si communication am mais rek communication mais euh, zéro faute li muy moom lay def bon communication bonul rek dafa réew dafa def li mu gëm lay wax gis nga bës naa wax ci mbëri mag yi fii mbari mag yi naa kii booy bi booy bi nangam gëm nga moom la wax te lim gëm moom ba léegi moom lay tari ci la ne loolu ci la ne boobu ci la ne mu gisuma ko gën koo gën communication ki ñuy bëre moom moo jaay boppam moom communication moo jaay boppam te ko yóbbu fu mu ne te dafa mës a gëm ne seen tur gi daf koy indi lu mu waxoon la nag lii lu bees ñun lu mu wax la dañu ko andil waaw dana kaa def a loolu ma tax kàddu nga koy dénk moom lan nga koy wax rek moom solo waaw di ko rek li ma koy dénk mooy mu gën a bàyyi xel jeunesse Sénégal xaw ma waa Thiaré de mais jeunesse monde bi Afrique parce que démb fii gune yi nelawoon Thiaré amul benn xale bu nelaw fii amul bi drapeau bi daanoo ah Thiaré boo ñëwee da nga naa asamaan gu set la dëkk bi ba gën a taxaw loolu rek jar naa tax ku ne rey sa bopp loolu rek gis nga mbooy ma sol nii moom moo ma ko jëndal bon xam nga woon dara laaj moom bu yëpp xel moo tax ma xëy sol mboob ñëw ko ñëw bees sa sol ko. feete ko victoire bi nag. Mhm. waaw jërëjëf papa kontaan ñu ngi lay gën a kontaan. jërëjëf maam ci kàddu bi ñu seqoon ak waa Caaroy di leen jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.